Souleymane xam nga tes prises de position moo lay porter préjudice toujours. Mm, et on après on ne fait pas attention à ce que vous avez dit antérieurement boo préciser na Amadou mooy sa candidat. nga rappeler nga rappeler lien mais nga nga def benn décharge bu violente. Je le le candidat de la majorité présidentielle. ñu tànn ko ngeen am ay problèmes euh, encore en interne. moom mu tàmbali liggéeyam yow nga ñëw toog nga ne opinion bi suñu candidat bi dafa amorphe xaw lan moo ko dal est-ce que sax waruñu étudier l'idée d'un report de l'élection mais mais mais c'est la charge la plus non, violente non, reçue par Amadou Ba même ses adversaires ñi doon xëccoo ak moom euh, la candidature à la candidature de Benno n'ont pas été aussi violents que vous et par la suite votre argumentaire opposition bi s'en est servi pour attaquer votre candidat. alors et on s'interroge encore ci say ci motivation. Euh, qu'est-ce que vous vouliez. enfin euh, utiliser nga qualificatif qualificatif qualifier li ma wax euh, exprimer que nga exprimer nga une position que je respecte parce que ñeneen wax nañu ko c'était pas le but ça a jamais été le but amorphe bi ma utiliser dafa am signification. li ma ci teg pour man dafay expliquer li ma bugg a wax. ku amorphe mooy ku yënguwul mooy ku ku ku yënguwul daal. ku ku ku ku yënguwul. ku yënguwul tayal na. ah doxalul yënguwul laa wax. waaw te boobu ba léegi gis naa mu yëngu boobu ba léegi gis naa ñun ñu yëngu bés bu boobu ba léegi gis naa ñi dem di ko parrainer ñu yëngu loolu laa ci jublu woon loolu laa ci doon wax. am na lu ma ci metti amuma lu ma ci metti euh, li ma ci à vos camarades ne vous ont li certains certains le débat est sain le débat est serein certains ñenn ñi ci ñi ngeen ñi ngay woowee camarades parce <laughs> que